naa maaleykum salaam ziar nañ la baax a baax. papa Ouzin bi tuddee bis tey noo ko yëgee. waaw euh, encore une di kontaan rek parce que bés bi dafa yaatu yaatu na lool ñu ngi ñaari entité benn bi nekk Médina Gounass benn bi nekk Ndiarème Limamoulaye mu am ñaari coordination coordination bu ci nekk am na fukki nit ak juróom-ñett ñu jox leen liggéey boo xam ne dañ ko dañ ko boole ak ay xale yoo xam ne ay góor ay jigéen ay responsable mais ku nekk wax dëgg yàlla jox sa morom cër. donc bu ñu la ci jiitalee day mel ne sas la donc sas boobu dañ ciy kontaan bu baax a baax di xam ne responsabilité la ñu koy assumer nag à plein temps bu soobee yàlla di ci xar suñu tànk tubéy donc kontaan nañ ci bis bi nga xam ne nii globalement ñu ngi ko jagleel 300 personnes donc boo nekkee koo xam ne dañ la ciy joxoñ da ngay gën a sant yàlla tey xam ne ñaax nañ la donc loolu daal mooy sentiment bi ñu ciy gën a am. papa Ouzin bàyyi ñëpp tuddee la ko loo ko yëgee tey. waaw Ouzin moom euh, moom nit ko particulier la ci ñun. yàlla xam na ne sax tuddee ma drapeau moom boo xamante ne ni man la ko tuddee yàgg na nekk mbëbëtam mais dafa jël lu jot rek loo yomb bii nag moom moom moo am sañ-sañ mu am yéeneem tuddee koñ feera bi nga xamante ne nii suñuy prérogative mooy désensablement voirie publique mu nekk lu rafet mu nekk loo xamante ne nii mën naa ne defati na Ouzin defati na baax xarit la doomu ndey la lépp la donc dañ koy ñaanal yàlla suñu xol fi mu gën a soree fa la ñuy tibbee di ko ñaanal yàlla fépp fu ñu dëgg promoteur yàlla na ko fa yàlla yóbbu yàlla na ci am lu kawe kawe njortam parce que mérité na ko Ouzin nit ku baax la Ouzin nit ku baax na nag suñu ko waxee mënuñu ko weesu yàlla na ko yàlla defal jàmm waa FERA yëpp toutes les coordinations de la commune de Ndiarème Limamoulaye toutes les coordinations de la commune de Wakhinane Nimzatt ak de Médina Gounass sant nañ ko gërëm nañ ko te wax nañ ko ne digle nga ay gor li ci kanam raw li bët yàlla nañ ci yàlla yóbbu macha allah jërëjëf papa. merci fay nan la. yaa ñu tuddee leen bis tey noo ko dundee. waa xanaa kontaan ci rek eh, ñëw ànd ak agent yëpp di kontaan lool vraiment ci eh, tuddee bi ñu tuddee làmb bi di ñaan yàlla rek mu am réussite totale. mais bis leen def monsieur tuddee ko ñeneen daa bàyyi ñëpp ñoo si wala waa waa Feeraay tuddee waaw moo tax ñu kontaan si lool sunu kontaante moom am na fu mu commencé mais amul fu mu yem ndax mënoon na ko tuddee. ñi nga xam ne peut-être ñooy joxe lu bari wala leneen mais tey ji vraiment tuddee bi ñu ko tuddee wan nañu ne ñun li ñuy def moo ko ñor liggéey bi nuy def moo ko ñor looloo tax vraiment ñu kontaan si lool lool lool sax waaw. am na ñu lay jaajëfal jërëjëf. papa ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay bu baax waay soxna si. tey ñu tuddee leen bis noonu ko dundee. waaw vraiment mbégte lañ ko dundee de parce que vraiment man waaw man c'est la première moo dégg ñëw stade waaye lu rafet la ñu boole ñett communes yoo xam ne ñaari communes yoo xam ne Limamoulaye ak Waxinaan ak ak euh, loolu nekk na loo xam ne lu am solo daal waaw man ndax man tam moom waxu micro waaye foog ma sàmm sama kàddu rek mais kontaan naa trop. jërëjëf Pape merci naa. ñu nii bis bu moom macha allah il faut tuddee suñu directeur tamit sama papa tamit. waaw sama papa au carré macha allah baax na feeraay daal mu ngi nii daal. macha allah ñoo bokk ñëppoo bokk ànd yaa ma gën a xam mag ak ndaw meer nangam nangam ñun ñëpp a bokk incha allah. kon kontaan ngeen. kontaan nañu lay wax allah bis mission accomplie moom daal di ko bàyyeeg yàlla rek. waaw yàlla xam lu xam lan moo ko lan la bëgg ci moom mais yàlla baal nañ ko yàlla rek. waaw jërëjëf merci. leen drapeau. ah rek. lay wax ci drapeau ah, kontaan nañ seen bu baax nag. Ah, dañu ñaan yàlla mu yokk ba ci kanam nag ñoo tuddee ñu ay gën a drapeau yu rek xool naa la Ouzin tey lu mu def dafa rëy tey fii laay toog sama kanam tonton laay tonton nuyu naa la. fay naa la na ngeen def. tonton tey Ouzin tuddee loolu ko dundee. ah drapeau bi moom vraiment affaire bi neex na te tamit bon ñoo ngi koy sant di ko gërëm. ndax tamit ku am bëtam daal la koy tuddee ko xam moom mënu koo fay dal waaw ñoo ngi koy ndokkeel daal di ko ñaanal yàlla xam nga mu gën a am promotion gën a dem daal ci kanam a kanam daal waaw ñoo koy ñaanal bu baax a baax daal kontaan ngeen gis ngeen seen bopp waaw baax baax bu a a baax ñoo ko bokk waaw fay nañ la fay nañ la. donc tey Ouzin tuddee leen drapeau te bu ko neexoon tuddee ko ñeneen mu bàyyi ñëpp ne tey yéen la ko tuddee noonu ko sant yàlla di nuyu sunu maire monsieur le maire Mor Waré Dabo ndax mu ngi ko tuddee drapeau FERA ñun ñu nekk di liggéey FERA te FERA si étatique mooy ñoo xam ñoo def entretien tali yi pour nga xamante ni suuf si na jógee si tali xam nga tali coût ay milliards la de ce fait que tali fa fa am toppatoo léegi toppatoo bu war la ñu sonné si tali bi. mu amul lu mu lay kii mu delloo lu njukkër wala nga sargane dañuy tuddee drapeau Fera Ouzin dañ koy nuyoo di koy sant bu baax si geste mu def parce que yombul fekk ay liggéeykat mu da leen sargal di leen drapeau wax dëgg yàlla kooku dañu sant yàlla bu baax d'ailleurs ñun contrat prestataire nekk depuis 2017 Fera ñoo ko initié au maire de ville de Guédiawaye nous étions 114 actuellement ñoo ngi commune département Guédiawaye mu ngi 600 emplois si Fera dañ ñu formé jox ñu waa ma waa Feeraay waa jëlal ma lii. depuis loo prestataire la woon mais léegi prestataire la mais léegi ñaan yaa am na am yi président Macky Sall jël suñu xool ñu baax jàppale ñu. tey daa mel ni fii tàng na de mais nuyu naa leen nuyu naa leen fay nañ la fay nañ la. tey da ngeen ànd ak lu xew yaay tey dañoo kontaan ndax dañoo tudde drapeau Feera yàlla def monsieur le maire Baïdy Ba de suñu maire. jël feera bi jox ñu ko ñun xale Gunaas wàq naan ñu bokk ko ñun ñëpp. di liggéey ci digg dëkk bi lu dara jarul ci àdduna moo tax dañ koy ñaanal gudd fan ak wér ak Diouf mi nga xamante ne nii moo ñu jiite ci feera di def lu baax te di ko wax kon dañ leen di ñaanal gudd fan ak wér yàlla may leen wér wér le ñu yokk ba yëg ko ba lépp li ñu defal njaboot gi ci teraanga ci Medina Gunaas ak Waxinaan Nimzaat suñu borom fay leen ko ci kattanu suñu borom loolu lañ leen di ñaanal leen di jaajëfal bu baax jox nag drapeau bi ñu koy ñaanal moom it gudd fan ak wér yokk ba yëg lum ci séntu suñu borom defal ko. maa ngi leen nuyu. dama lay fay. tey da ngeen a mbégte. waa gis nga mbégte la ñu àndal. ànd ak sunu njiit Ousmane Diouf njiitu waa Fera ñun ñëpp ñoo ngi fi teew kontaan ci daal. kontaan nañ ci bu baax a baax a baax a baax. di wax Ousseyn. ah Ousseyn moom xanaa ah, ñu ngi koy ñaanal yàlla moom mi ñu tuddee drapeau bi def lu rëy. macha allah ay jigéenu jàmbaar la ko tuddee ay liggéeykat ñoo nekk ci feera bi di teel a xëy dugg dee waaj macha allah di gërëm sunu njiit li Ousmane Diouf. lépp moom la ak maire Beydi Ba maire Gounass bi macha allah dajale ñëpp ne ànd leen takku liggéey di setal mbedd yi ba mu set di setal tali ba mu set jërëjëf macha allah. tos doo moo rek doo moo looy wax looy wax ki la tuddee ah damay sant yàlla bu baax di julli ci yonent bu tedd bi di ñaanal suñu kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ñu jox ndigal ba tax ñu mën a ñëw ci drapeau Ouzin Production. di ñaanal Ousseyn Ousseyn production aussi kilifa yi aussi maa ngi ciy jiital euh, monsieur le maire Baydi Ba moom mi nga xam ne bañ àndeek moom ba tey dara ñaawul ak monsieur le maire Mor Waree di gërëm monsieur le maire Alioune Sall bu baax parce que nag bu feeraa duggee euh, ville de Guédiawaye bu fa duggee bu duggee biir Guédiawaye Alioune Sall tax kon nañ ko delloon jukkoor bu baax a baax Ouzin production ma koy ñaanal gudd fan ak wér parce que nag lii mu def yombul mu fekk ay nit ñu xeebu lool mu ne ñu tey ma yëkkati leen ba ñëpp gis leen xool li ñuy liggéey biir géejawaay xool li ñuy liggéey au niveau national pour ñëpp gis ko wane leen dinaa leen wane envers en travers lamb ji loolu dañ koy ñaanal guddi fan parce que bu ñëpp ñu bëri defee ni ñoom ni moom Sénégal dina développé ñun nag li ñu yor nii dañuy lancer benn appel à monsieur le euh, euh, président de la république euh, président man sa rak man maay wax ak yow li ñu bëgg mooy li ñu jox xeebuñ ko tey xeebuñ ko ëllëg ñoo ngi góor góorgóorlu moo ngi faj suñuy soxla yi waaye nag boo ñu doolee ñu jël xeebuñ ko nag benn yoon ci la ñuy xëy ci la ñuy gontu xeebuñ ko benn yoon yàlla xam na ko waaye nag bés boo ñu dollee ñu dolli te li ñuy xaar li ñuy xaar ci yow mooy nga dolli ñu changer suñu estatu au moins ñu jógee fii ñu nekk dem feneen buñ ko defee dina baax lool ñu ngi la ci xaar lool di la sant di la gërëm di ñaanal senegal jàmm di jaale aussi ñi nga xam ne dañoo bokk seen mbokk yi dañoo dañoo bokk ci ñu accidenté di jaale waa senegal yëpp di ñaan jàmm senegal yàlla na fi jàmm yàgg jërëjëf amiin Saliya ñu ngi lay fay baax tey boo gisee ñu teew bi sunu doomu nday moo xewlaat mooy Ouzin Production moom sunu waay la moom bu xewlaat rek ñun dañoo war a bàyyi lépp lu ñu def ñëw te aussi tamit dama ànd ak sama waa samay xarit waa feeraa ñu tuddee leen drapeau ma ñëw ànd ak ñoom pour teewee bés bi te aussi tamit dama am mbër buy bëri tey mooy am moo daan léegi sax mu nekk lu bees ren mi soogee ñëw si école de lutte Guédiawaye mbooloo yàlla defal ko premier combat mu am ci ndam kon dañ koy sant yàlla léegi nag di wax nag waa Guédiawaye nañ ñëw ci jàppale école de lutte Guédiawaye mbooloo ndaxte waxtaan wa dëgg fa yàlla boo yaa ngi liggéey léegi mucc ayib di wax nag na promoteur yi ndax Jackson Junior mi ngi ñu ngi waajal lu rëy ñu bëgg na promoteur yëpp ñëw ñu jox ko ci ponkali bu bëreeg ñoom parce que Jackson Junior wane na lépp lu ma war ci làmb ji. merci